mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax euh, comme ni ma leen ko junjëwoon rek dañuy continuer ci ñaareelu jataay bi ñu fas yéene ko ànd ak koo xam ne it ni ma waxoon ci bu njëkk bi du ko euh, muy Serigne Cheikh Fall Taif euh, war a waxtaane thème bu am solo boo xam ne actualité la mën naa ne lépp ngir waajtaayu màggal gi ndax màggal gi dafa ñëw ci ci ci ci jamonoom dañoo màggal ci ci ci jamono thème bi muy waaj waxtaane muy thème bu am solo kon xëy na bala may annoncé thème bi dama koy jox mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel kon sëñ Cheikh Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. mbokk ji li ñuy déglu mbokki mbokki talibé yi noo leen di nuyu te di leen ziar te di leen leen baal àq baax a baax te di baal rawatina ci weeru tedd ñu nekk bis bi tedd bi ak pàkk bi di ndokkeel ñëpp nag di ñëpp jàmm Cheikh Bada. jërëjëf euh, Serigne Cheikh Fall Taïf euh, ñu bëgg a waxtaanee ak moom rek benn tomb bu am solo mooy li nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne moo xew ci jamono ji nga xam ne Euh, ni ñu koy waxee rek euh, bariwul fu mu eggul ci àdduna bi te ñun nag ñu war ci waxtaan ba xam taxawaay ban lañ ci war a am ndax kat gannaaw ci réew mi la ñu nekk war nañ cee xam euh, nan lañ ko war a dunde waaye nag lépp rek ñu teg ko ci diine ak lislaam ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci diine am laaj bi ma koy njëkk laaj rek dama koy laaj ndax lii nga xam ne moo xew muy coronavirus bi Covid 19 sëñ Cheikh Fall boo ñu ko doon jàngatal ci dan lañ koy man a mën a fan lañ koy mën a dugal ndax xëy na euh, balaa la wala wala mbas la wala wabaa euh, ci tënk bu gàtt rek bu ko defee ñu door a jàll ci yi ciy des kanam incha allah. kon noo ngi lay ndokkeel baax di la jaajëfal ci laaj bi kon mu mel ni comme nañu ko laajee comme li ñu xew nii nga xam ni ci lañ toll muy jàngoro ju lëmba réew mi waaye ba bitim réew mu mel ni nag comme ni nga ko waxee nii suñu dee waxtaan ci lu mel nii ca bëgg koo teg ci base bi ñu toll. Mhm. faaw ñu indil ko ay cëslaay ci lislaam mhm. xam naa nag day mel ni jëmm ji comme fi ñu toll nii lii ñuy dund moom mas na ko tuddee balaa. Mhm. ndax day mel ni bu fekkente ne dañ naan diggante wabaa wala taaxoon. day mel ni ñi ñi ñi jàngatee lan mooy taaxoon ak lan mooy balaa. xëy na dëgëreem dëgg dëgg dëgg dëgg wax dëgg àggut ci taaxoon. waaye kon ci ni ñu koy mën a tënke rek mooy kon ci balaa la. balaa nag xam nga lañ koy ni ko borom maanaam mooy ab nattu maanaam balaa maanaam mooy ab natt ki ko teg nag mooy ki ñu koy nattu kon moo jox ñu naan albalaa ak ibtilaa mooy li li muy tege moo xam jàngoro la mhm. moo ak ñàkk la mhm. moo xam faatu gu bari wala lu mën a doon mhm. léegi nag ki koy teg kooku loolu loolu la ñaan ibtilaa mooy li suñu nag buy teg balaa ci ñaar la koy teg muy ku ko gëm ak ku ko gëmut bu fekkee da koo teg ci ku ko gëm war na ca jàngat ñaar benn bi war naa jàngat ni moom mi kat kon xëy na daa wàcc aw yoon suñ borom di ko jox ab yar ne ko kat yaa ngi wàcc ci yoon wi ñëwaatal léegi teg ko balaa wala mu teg ko balaa it ngir ëllëg kat am na ay euh, garaat wala ak jéggal gum ko bëgg a jéggal tax mu teg ko ko bu dee ki ko gëmul nag moom saa bu ko ko tegee rek day mel ne ab lancement lay doon a xamal ko ne ko yow kat comme da nga wàcc aw yoon maanaam kon maa ngi lay lancement lii di la bàyyi xel ni boo liggéey boo dikkee comme li nga fi fekk kon liñ ci war a jàngate mooy lii ñuy dund nii mhm. maanaam ni ñu koy mën a tënkee mooy balaa la mhm. li tax mooy ni ko borom xam-xam di waxee dañuy wax ni taaxoon yonte bi alayhi salaatu salaam da cee joxe woon misaal mhm. waxoon ni on diis na diis goog maanaam du du dugg madina ca taaxoon ni ñu ko waxee boo de bu doon mooma rek day bari ndax dañuy wax taaxoon bu doon mooma lu mu néew néew néew néew chaque jour li muy faat day ëpp ay junni junni. Mhm. Euh, ci ci comme ci bi ñu nekk. léegi nag bu fekkee da ngaa dem ci ci yeneen place yi nag kon xëy na man na faa taxawee lu mel noonu ndax ndax ni ñu koy déggee. waaye ñun bu fekkente ne ci barab bi ñu nekk la moom duñ mën a dégg ni lii maanaam taaxoon la. Mhm. waaye balaa lañ koy lañ koy mën a joxe. balaa lañ koy mën a joxe waaye suñu balee bu ko defee. Mhm. jullit yi nag ñu bàyyi xel ni xëy na suñu borom boo tegee dara ab jaam. la si jaam ba war a njëkk jàngat. mooy suñu borom tegu ko ko rek ci zéro waaw déedéet déedéet mm-hmm. saa boo ko tegee am lu tax mm-hmm. conduite bi li mu ci war a jëkk jàngate mooy bu la suñu borom tegee balaa teg na la ko mm-hmm. ngir nattu la maanaam xam ne da ngaa wàcc aw yoon mu ni loo xam ne dil si ci yoon bi kon war nga caa jànga ne tegee balaa bii kat lu toog rek waaye damaa war a jànga ndax man damaa wàcc aw yoon kon naa ñëwaat wala ma gis nit ñi su ma ko tegee am na ab yool bu ma bu ma bëgg jox ëllëg ak it mu jàngate ni nag suñ borom du teg mukk mukk mukk am natt ci zéro maanaam boo ko tegee rek am na ab yool kon bu fekkente ni teg na la ko dañ naan albala maay mooy li ñuy tege mm-hmm. al ibtilaa nag mooy ki ñu ko teg ndax nangu na ko mm-hmm. bu fekkee nangu na ko waaw waaw nangu na suñ suñu moo ko teg dogal bii mu muñ ko mm-hmm. suñu borom dana ko tegee ca dana ko fay ëllëg bu fekkee nangu ko nag du tee maa dogal ba nefa bala ba nefa ca ca boobaa ca ca ca du jom ak pay kon buñ ko déggee noonu mhm. faaw ñu gis ni lii ñuy dund dañuy nangu ni lii suñu borom moo ñu ko teg mhm. loolu mooy tax ëllëg dana ko teggi ba pare fay ñu waaye buñ gisee ni dañu ko teg ci hasard rek ko wala wala ñuy deltu gannaaw kon day métti bi moo fi nekk mhm. mais ab yool du fi nekk macha allah euh, jërëjëf Serigne euh, waaye ñu gis ni euh, du du lu bees xëy na ci àdduna te ñun dañoo am ay royukaay lu mel ne ku tedd ki Cheikhul Khadim ak sangam bu tedd ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ne daana am ñu bëggoon a xam yan jàngale la ci lañ ci joxe woon ñoom ndax gis nañu ne toll na ci jamono joo xam ne léegi bari na lool commentaire yi kenn ku ne ak ni mu koy gise waaye ñun gannaaw ñooñu ñooy suñuy royukaay jàpp naa ne bu ñu dellu siwaatee ci jamono yañ daan am lu mel ni mosaan am taxawaay yan lañ daan am. day mel ni lii du mhm. maanaan lu mel nii lu fi yàgg la waaye dafa mel ni nag tey bu fekkonte ne tey yan yan taxawaay lañ daan am. Mhm. man man na maa wax ni rek tey fekkonte ni sax damay anticiper waaye dama naan taxawaay yi nga xam ne tey moom la julli wala kilifa yi di di joxe day mel ne jamono yooyu it nag amutoon yeneen taxawaay xam naa danañ ci ñëw ndax dañuy xam dañuy wax ci taarix lii ñu ngi ko njëkk gisee ci gàddaay bi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu na ko jógee jógee Makka ñëw Madina wax nañu bi mu fa ñëwee booba jàngoro juy wàlle amoon na ca la wax ca la yonent bi waxoon nag ni lii xew nii du taaxoon ndax newoon na taaxoon du dugg ma dina waaw kay kon moo tax kon la xewoon la muy métti métti kon balaa rek lañ koy tuddee. Mm-hmm. wax nañ jamono ba ba mu dikkee. Mm-hmm. sa ma saxaaba yi bari na ci jàppoon na leen am na si ñaari ñu ñu gën a siw mm-hmm. ku mel ni Aboubacarine ku mel ni Bilal. wax nañ ni jàngoro ya jàppoon na leen ba yonent bi ba mu amee lam lam digle woon mooy nañ leen génn maa nañ leen ber kon day mel ni suñ ko dee dégg. léegi jàngoro dal nit ñu ber ko doonul gan waaw baatu quarantaine mm-hmm. kon maanaam xëy na ni ñu koy utiliser ni ak ni ñu koy tuddee mooy wute waaye jamono bi yonte dafa xoon ñi jàngoro ji dal mm-hmm. nañ leen génne mm-hmm. pourtant amoon na lu ñu doon faje mais jamono boobu xëy na euh, maanaam faj ni mu avancé boobu amatoon boobu wax nañu lu mel ni meew wala am sawum gil sawum giléem ak xëy mel noonu loolu lañ leen doon jox maa ñim daloon ba yàlla dogal ñu tane door a ñëwaat ci biir nga xam ni kon loola mooy bi bi nga xam ni ma donte yu bari la waaye ma waaye ma seen ci boobu waaye dafa mel ni xilaaf ak Seydina Omar ñoo koy ñu koy wax atam amal majaa xam booba yàlla dafa dogal Seydina Omar booba moo ubbi Palestine yàlla dogal booba gàddaay am na fukki at ak juróom-ñett Omar bi mu ko na ay jàmbaar yu mu fa yebaloon nga xam ne ñoom ñoo ko fa nekkal wax nañu ñoo ne jàngar maanaam jàngoro ji feeñoon na fa mais ba mu fi feeñee la ka ka ko jité won wax da wax ñepp ñi nga xamné ne da leen dal nañ leen ber ba buñ xassok ni ngeen ngeen ñu bañ leen wàll. Mm-hmm. wax sax ka nga xamné moko jité won di Abu umar mom mm-hmm. jangoro ja da ko dafa metti won ba sayyidna umar sax da ko doon wax nan timo ñew fekk ci ko. mom nak mu jëfandikoo hadith ba nga xamné mom moom ti waxon ni ko mm-hmm. yoon bi waxon ni ku ne ci barab jangoro fekk la fa. nga tok fa muñ ko ba yalla dogal jangoro ji jeex wala nga faatu ja suñu borom da lay bindal tuyaaba kon day mel ni dañuy wax ne bu nit nekkee ci barab ba jàngoro fekk ko fa sax lay lay ak njulite mooy mu toog fa maanaam ba jàngoro ja euh, jàll boobu kon dañuy wax ni Abu Ubayda Amir ibnu Jaraax booba moo jiite woon maanaam moo fa nekkaloon Umar moom moomu ak ñeneen ñu baree bari jàngoro ja dal na leen ba ñoom ci lañ faatu nga xam ne biñ faatoo Seydina Omar kan kam fa tegaat dafa waxoon nag ñi nga xam ne dañoo faatu su leen dencee ñi nga xamante ne bi yàlla dafa dogal jàngoro ji leen dal kon nañ leen ber ba buñ joxasoog nit ñi kon foofu toujours li may bëgg wax rek mooy jàngoro am ñu ber ñam ñu ber ñam dal ngir bañ ñu wàll ñu wàll ñi si des loolu kon du gan ci boobu it mooy ñu amoon doon ko jëfandikoo muy pajement lañ ci amoon ña koy def yeneen mooy nag xëy na su ma ci dikkee daanaka mën ngaa wax ni bu jàngoro masaan am lañ daan def ci jamono yonte bi lañ daan def ci jamono sahaba yi ba ci jamono Cheikhul Khadim na nga xam ne noonu lañ ko doon jañee loolu day nekk benn bind boo xam ne bii rek ñoom ñëpp dañ koy bokk nga xam ne kon yooyu ñaar la ci noonu nga ko mën a wàccee ba ni ngay ñëwee ci Cheikhul Khadim incha allah. waaw mel na ne dañuy jàll rek ci ci ci ci ci ku tedd ki Cheikhul Khadim comme ni ñu ko waxee ndax ku ne xam na ne ñun xëy na moo ñu gën a jege yonent sa sallallahu alayhi wasallam te it xëy euh, bi mu fi jógee yàggewul noonu te jamono mel na ne lu mel nii amoon na waaw moom yan taxawaay la ci doon def dañuy wax ni day mel ni xëy na moom ci ay jamonoom du ma ne yi ci am waaye yi nga xam ne bokk nañu ci gën a fés yooyu xamaa du sori 1895 96 boobu am na mi fekk ko fi xam ne boobu la génnoon waaw bi bi ma ci géej gi booba li ñuy wax mbas maanaam mbas la ñu ko mën a tuddee amoon na waaye boobu ba mu amee ñi nga xam ne ñoo yor responsable maanaam yoon wi ku mel ni maam Thierno dafa mel ni nga xam ne yoroon na njabaru Seexul Xadim mhm. booba la nga xam ne moom la jamono laajoon defoon na ko mhm. maanaam wut maanaam lañ naan wut saafara yi ñu xam te dañ si ñëw waaye ak la nga xam ne moo ci toppit mooy wut wutal leen foo xam ne danañ fa mën a nekk ba xëy na jàngoro ji du leen aar mm-hmm. ndax dafa mel ni at mooma si njabaru seexam ci boppam mm-hmm. dara na ñooñu wàcc nañ waaye mel ni si jàngoro ji ci lañ wàcc ba ci ñeneen bokk ci seex yoonu murid yi ñu baree baree bari mm-hmm. maanaam nga xam ni booba la ca faatu kenn xamul nu mu toll ci booba day mel ni jàngat jàngoro ji la woon booba nag amuñu woon nenn ci liñ ko mën a fajee ci saayir lu weesu taal ay nekk ak béro maa ñim dal ñu ber leen ak fañ ne ko ñu tuxoo fa taal ko ak yu mel noonu maa ci jamono saayir ak di diwoo ay dóom ak yu noonu daanaka boobu bu doon ci saayir man nga wax ne noonu rek lañ ko a faje sax dañuy wax ni boobu xëy na mooy benn bi waaye am na boo xam ne bi it xam naa du sori 1920 21 boo xam ne bi maanaam boobu moom fekk na fekk na fa sëñ bi fii ci njaarim waaw fekk maanaam fekk na ko fi booba day wax ne sax ci jëmmi béro gi maanaam wax nañ ci yoonu murit maintenant ab seex boo xam siiw la comme si ku ko tuddoon des na ko xam mhm. am na dëkk bu mu dëkk nga xam ne feneen ab dëkk ma mhm. pour dëkk ba la ko sanc maanaam yàlla faral moom jàngoo ci doo moom ñu ber ko fa mu ne fa mhm. far ba ne ba wér nag ne fa far mbooloom fekk ko fa nga xam ne kon dafa mel ni ber googu ñu ko beroon na sax ñu sanc ab dëkk kon ba tey foofu li muy dikkaat rek mooy nañ ko doon toppe ci jamono yonent bi alayhi salaam nañ ko doon saafara ba jamono Seexul Xadim it amuñu benn saafara bu dut képp ku jàngoro dal ñu jëm laa faj ci lañ man ci saayir ber la ngir nga bañ a ngir nga bañ a wala kon loolu moom moo continuer ba ni mu ñëwee ci jamono Cheikh Moustapha it ndax boo ko jamono Cheikh Khadim it day mel ni Cheikh Moustapha it lu mel noonu fekk na ko fi waaye moom it euh, fajin wi ak doxin wenn la ndax cëslaay li dañ koy delloo ci lislaam mhm. ginnaaw jamono Yonent bi alayhi salaam li ñuy def mooy ber la ak wutal la faj mun mën a am ci saayir loolu moo jaar ci saaba yi ba ci Cheikh Khadim kon dañuy mel ni lii ñu gis ni tey jii moom la ñuy saafara jàngoro jii ñuy gis nii mhm. mel na ni doon lu bees mooy comme dal ñu ber la ngir nga bañ a ñu ci des waaye li ñu jàpp mën na koo saafara ñu la koy jox. macha allah mhm. euh, jërëjëf Serigne Cheikh Fall. Euh, jërëjëf Serigne Cheikh Fall ci leeral yu am solo yooyu euh, waaye xëy na comme ni ñu ko waxee rek du lu bees te ñam fi daan fekk suñu kilifa yooyu ñu tudd daanañ def ay taxawaay léegi ci jamono ji ndax dañ leen a war a diglu ñoom wala docteur yi la ñu war a diglu ndax dafa bari murid yoo xam ne sama classe gi daanaka fii ne bu docteur yi waxee duñ ko kii waaye bu sëñ bi waxee rek ñu ne gannaaw sëñ bi wax ne la ñu war a am ngir mucc ci ji ndax euh, na ne bu fekkente ne topp nañ li nga xam ne moom la ñuy digal mën naa am saafara dana am foofu moom li ci nekk mooy a mm-hmm. Mm-hmm. li alxuraan di wax naan dee la fas aloo ahli sikr mm-hmm. day mel ni day mel ni da ciy dugaat ndax ginnaaw yàlla dogal na ñoom la suñu borom dogal ñu am xam-xam boobu di ci di ci yëngu ci ci ñëpp nangul leen ko nga xam ne fi ne tey ku tawat da nga dem hôpital kon tey ki nga xam si tey bu tawatee da ngay dem jébal ko sa bopp amatool bu jàngoro feeñee donte nag jàngoro feeñ na xëy na am ngi moom kenn werante wu ko am gi kenn werante wu na am na yeneen ak yeneen nag loolu moom duñ ci dugg waaye am gi moom kenn werante wu ko ndax nag dafa am loo xam si ginnaaw ak yooyu yëpp moom duñ ñu dugg waaye ginnaaw tey ñoom la fi teg ci ñu am xam boobu ci wàllu saayir kon ala kulli al mënees su doon ñàkk a déglu waaye ñi nga xam ñooy kilifa diin it ñoom it dafa am benn faana boo xam ne bit kenn mënuñu ci ñàkk a déglu ndax ñaar yooyu ñooy ànd ñaar yooyu ñooy ànd docteur yi ñu wax ci saayir nga di ko def sa kem kattan waaye yeneen yi nga xam ne nag nag ay arme nga xam ne moom la kilifa yi di moom la kilifa di di joxe ndax ñaar ba tey lañ ko doon rek benn bi mooy faju benn bi mooy ñaan mhm. ak agee ci ayu kon dama demoon bii ñaan ñëpp la ñu war déglu les docteurs yi moom nañ leen ko jox waaye leen li nga xam ne moom la kilifa yi moom it ñu jox leen ko bu ñu woon ko joxee jàpp nañu saafara mën na am. macha allah mu mel ne kon na loolu lañ bëggoon a yaatal euh, ndax ku ne gis na ne euh, ñaari côté yëpp daanaka mën naa ne am nañ seen ndigal ndax bu dee euh, fii Touba xalif général di Mouride joxe na ci ndigal waaye da koy takk moom ci boppam takk mask ak li nga xam ne moom la waa kër docteur diglu. Sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne xëy na moo woote màggal gi moom it gis nañu bis bi muy woote ni mu taxawee woon bañ ko dafa takk masque waaye soñu ñëpp ngir ñu takk masque xëy na kàddu yooyu jeexale sëñ Cheikh Fall ak looy soññ ñi nga xam ne xëy na euh, ñoo fas yéene ñëw ci bis bi. maa damay jàpp ni kon foofu liñ li ñu war a njëkk a bàyyi xel mooy. Mm-hmm. xam nga comme dañoo wax ni maanaam docteur yi moom am mm-hmm. ni mm-hmm. maanaam balaa mii saa bu dikkee am na lu tax mu dikk. maanaam saa bu jàngoo saa bu balaa amee rek nit ñi nañ bàyyi xel ni ak mooy am na. ak wàcc yoon am na ak leneen ak leneen am na. kon dafa bokk ci la nga xam ne lañ war a njëkk a lañ war a njëkk utiliser bu ba ñu ñun jullit ñi mm-hmm. moo ñu delluwaat suñu borom mm-hmm. moo ñu tuubaat dellu suñ borom waaye moo ñu toroxluwaat mm-hmm. waaye moo ñu ñaan ko waaye moo ñu saraxe moo ñu tuub yooyu day ma day arme yi nga xam ni mag ñi dañ ko moom lañ daan utiliser ngir delloo balaa balaa saa bu dikkee arme yi nga xam ne moo koy delloo ci baatin mooy ñaan mooy toroxlu dellu sa borom di saraxe ak yu mel noonu kon yooyu faw ñu jëfandikoo ko ba noppi maanaam même donte dañuy jëfandikoo li ñu ko docteur digle mm-hmm. waaye yii moom mënu ko ñàkk mënu ko ñàkk jëfandikoo mm-hmm. ndax buñ bëggee mu dellu waaw mm-hmm. loo loo loolu moo koy delloo sëriñ bi mi ngi ci bay waaram ndax njàngum alxuraan bi ku ne gis na lépp ngir waajal màggal gi waaye fexe ba ñaan suñu borom tawat di jóge xam nga loolu moom mel na ni wax dëgg nag ñi ngi ñi ngi gis résultat bi bu wér a wér li nga xam ne tey moom la ñuy wax nga xam ne tey ci contexte bi ñu toll muy màggal gi dañuy jàpp ni gàddaay ngir lislaam dara gën koo foor nit gàddaay ngir islam jàngoro dal ko ñu ber ko kon loolu amul ko gën a fort Seydina Omar bi mu dem Palestine di ko ubbi ngir diine jàngoro dal leen fa ñu ber leen di faju dara gën ko koo kon dañuy jàpp ne tey bu fekkoon dañ naan am na lu gën a fort ba tax tey bu lu maanaam jàngoro dal la wala jàngoro xew nga ne damay defee nu ma neex l'islam moo gën a foor mm-hmm. gàddaay yi gën a fort ngir diine ubbi dëkk moo gën a fort ngir diine Seex Xaadim mii liggéey bi ñu doon liggéey bi ñu doon liggéey yonte bi mm-hmm. moo gën a fort mais saa bu lu lu mel ni masaan am taxawaay yii lañ lañ cay taxaw kon bu ñëwee ba li ba li répété wut uh-huh. la gën moo ñu ñu taxaw comme taxaw yooyu ca ku mel ni Cheikh Amadou Mountakha uh-huh. nañ bàyyi xel ni comme moom exemple la ci ndax biñ ñee am na lim njëkk def mooy uh-huh. dafa làmb li ñu jàpp ni am koom la mën a dimbali mën a kër docteur yi waaye yëmu ci ma joxe ci ndigal waaye ba noppi da ko masque ñu bari na tey bu fekkee dañuy gis ma takk ma takk masque ndax dañ jàpp ne waaye xëy na ndax daa mu baatin wala déedéet mais takk gii ma takk wàññiwu dara ci li mu doon xalifa général des mourides wàññiwu dara ci batin bi mu war a am wàññiwu dara ci saytu saytu mu war a saytu yoon wi ba ci borom pàkk bii di si Amadou Mokhtar moom it ñëpp xam ne taxawaay boole ci am taxawaay kon moom it muy def nii mooy da koo da koo teg ci ak murid ak murid waaye da koo teg ci lislaam parce que cëslaay yi ñu wax nii kenn mënu topp ba génn lu lu gën a kawe di moom it kon masque yi muy takk ak li mu digle kenn ko ne ci war a def teewul muy xalifa Cheikh Moustapha teewut li mu yor maanaam mu yor ko comme ñun li ñu ci war a jànge mooy topp suñu digal kilifa yi awalan waaye kër docteur yi li nga xam ne dañ koo moom ñu jox leen ko ngir nag mën a mucc ca ñu bàyyi maanaam wattu bakkan wattu bakkan farata la amaloon nag ba fekkente ni nit ñi dañ koo wax gis lii kat xëy na moo ku ko def man caa mucc ba noppi nga bàyyi ko rek def la la neex kon day mel sa bakkan bi man yaa ngi koy sàggane te sàmm sa bakkan nag day mel ni farata la sëñ Bada jërëjëf sëñ Cheikh Fall ñu ngi lay jaajëfal bu baax Euh, di sant bu baax mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon bàyyi xel euh, ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lañ doon def euh, di fàttali rek ne sëriñ bi noonu la ko wootee wax na ne mbooleem koo xam ne yaa ngi ñëw ci bés bi na nga sàmmonteeg ndigal yi kër docteur digle te sëñ Cheikh Fall ñëw na ci léegi mel na ne ndigal yooyu wuutewul ak ndigal yi lislaam ndax répété na ñëwul benn yoon ci diine lislaam kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax na ma ko waxee mbooleem gan ñi ku ñëw toog ca bërëb ba nga xam ne fa dal ñu tarale ko foofa waaye mu dundal bis bi ci bërëb boobu mu nekk ci alxuraan ak xasida ak ni nga xam ne noonu la ko euh, mbokk yi doon junje kon mbokki ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di taxawlu foofu ba ci yeneen jataay incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.